Sénéginja, mayonnaise onctueuse et délicieuse. Alib, le goût naturel du lait. Ginny Ginger, Tolé Arôme, Baobab Hightech. Diwan Décor, votre personnalité devient un style. Novotel. Régis, نخول نقا لو كسلي مصل ولا يو لجي خلم سن نقا نمو مل ولا لكو سنة اليوم مونغي تيجين بوغيس نمو ينوبي نوم لي مني تيجين بوغيس تدنغا يو أتنا Tell you, tell you the body criminal Toen lag haar de mond, deed tabak Adinam jou De vergeni mungia Muna am bug bugam mom later Muna am bug bugam mom later Sénégal te doo ci toftal teraanga fii lañu ko fekk fii lañu koy bàyyi saa yoo ubbee sa buntu kër bul xam koy entrée wolof nee na paaka balay rey sa mbokk moo koy daas ma ne bu nekk am na surtout ñiy yew bira yow nga ni do tay do xadi bira war nga xey si heure bi léegi bëgg na xam lo ah ya nga melni kuma ku ay baaf te ku talam bi heure bi di yak courant leer na ma ni da nga mandi nek ci dëkk bi di def feet ba fajar bilaay feetuma nag de sama wayn la jënd di safal ba fajar nga man ay boîte de nuit ay xale jigéen sonal tuma di rek ma sonal yow li nga nekké nag ndikete tayo ko waye comme que damay yuxu monsieur Diagne mo ngi lay wër ci fajar ba léegi hmm. waaw gis nga jour bu ngeen jàkkaarloowee dina la tëggal nga ndi ras nana sa café nak té xamné tay kër gi dina tang jër la la wax moom sax ban côté la nekké sama yoon nekku ci loolu lijjanti ko sa bokk ah eh eh looy def fii. soxna xanaa danga maa jaawle. fii nga génnee sama kër la. soxna si danga maa jaawle de. ngay daw gàddu sa saak ak ay dàll mel ni sàcc. soxna si danga maa jaawle man dama doon seet sama benn. xarit bu dëkk fii nii ma réer samay règle dab ma wuy eh, xam nga lu ma la yëgal waxoo ak dof te waxoo ak manquant wax ma looy def fii soxna si wuy ma yaa ngi may tooñ bu ma indi riir sama benn xarit laa doon seet fii nii réer sama règle yi dab ma wuy wuy sama ndey règle gis nga su ma dalee du mas eu, dara. Massa xam nga nu ñuy def. nañ dem si biir nga changé waat yëpp dégg nga. wallaay ku baax nga soxna si waaye bàyyi rek damay dem. nañ dem si biir rek non billaay si bu na ma Axel? Axel, Axel. bismillah. ok d'accord c'est bon merci. Ah, yow gaaw nga ni nga ba oui au fait faire le taxi tu sais hein j'avais complètement oublié qu'on devait rendre le dossier final au boss aujourd'hui. Et il faudrait au moins que l'une d'entre nous soit là. Je me suis toujours demandé avec tes compétences comment tu peux continuer à travailler avec quelqu'un comme Marem alors qu'elle ne sait rien faire. Tu sais, Marem, c'est la meilleure en stratégie. Et c'est une grande bosseuse. Vous me t'appelez à Daouligay. Ça m'étonne pas. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. Le boss m'a demandé de lui trouver une personne pour la nouvelle agence. Et j'avoue que j'avais pensé à toi. Ah oui Oui.. c'est un très bon poste et de l'argent en prime. Euh, tu sais, gars, dans le travail, les sentiments n'ont jamais fait évoluer. Pensez. maam maam defal ma foofu benn plateau euh, infusion nga defalal ma si aussi benn euh, verre d'eau ak garab boobu nga xam ne moom la ñuy naan bu suñu biir di metti waaw mooy fi. waaw nga tegaale ku ci dama am gan dama yàkkamti dégg waaw maa ngi ko indi léegi. merci oh ça fay merci beaucoup. ñoo Boko, bokk. yaa tane. ça va. on s'est pas présenté. madame Diagne Lala Piem ah Marème Dial enchantée. Dial ah, yow ça sant bien neexul Ah, ah couleur pire. ah <laughs> Ouais, c'est vrai que ça se reflète sur tes traits. merci mhm. mais man dama la xàmmee. lu war a mën a la. waaw am na fenn fu ma la gis. Hmm. doo liggéey ci wàllu mode beauté.

xale jigéen yi kay ñoy top ci kaw diko biw comme ay wéñ <laughs> waye dina la wax dara de hmm. fi di gu fi am jëkër bu ciofé hmm. xalé def la bagage rek <laughs> sax ba gis sama bos bàyyi hmm. ba gis ko mom kese man da nga wóolu sa bop de nonu la nak <laughs> la la waxtan bi neex na lol way ma dem ko dem dañ doon defal infusion ak antidouleur comme ça biir day metti nga naan garab maam maam andi ma plateau bi rapidement Coucou chérie. ben. Oui. Le défi ah lu défi def la gisee nag. mais je suis passé juste pour un coucou je ne me cache pas hein.

chii bi am nañu problème. problème mu lan. Hmm, lii moo tax may ba lay wax bul fi dee di ñëw. eh gis nga fii tu as le pouvoir de renvoyer qui tu veux bu lay fenal nga di ko dàq. te man dama bëgg femme de pouvoir Hein? allez viens. waaye yaay. coupé nañu courant bi léegi léegi. xanaa danga ma ko fàtte woon jox tey suba. ci suba kat ma yomb ma wax nga ma mel ni dama laa reyal sa taaw man ma crédit de crédit. waaye léegi bi ñaata la. 57 000 plus man ak yow kese ci benn kër ñu consommé loolu yëpp. ah lan nga bëgg. waa léegi man nan laay def maa ngi ni chantier. xanaa nga fay ko soo ko fayul ñu fanaan ci lëndëm. waaw baax na. soof bay bëgg a plateau nga indi assiette. yow kay ngay dégg olof baax na daal. non amul problème yow it. ma chérie ma jox la antidouleur ba pare. waaw waaw sama biir mu ngi metti sama léegi.

may wax platam bu modde ñak silouissé xol ko xam nga ne bu ma sëy sëy lay lu xew? J'ai un peu mal à la tête. Lu tax wooma? Comme tey da nga ne dama bëri liggéey, loolu tax bëgguma loon déranger quoi. nga garab? waaw naan naa garab moo tax ma tëdd pour mu sedd nii. mas fi def heure bi eh, du xam nga Noura capricieuse yam ma fu ma yàlla yamul si boutique bi ñu wax rek mu ne dafay ñibbisi ma ne naa profité indiwaale ko jëlaale ay tuuti client yu ma fàtte woon. waaw ah, d'accord ah xanaa naroo dellu yaa ngi suñu daal de. Eh, man daal. may gaare nii rek dajeeg benn xale bu jigéen mu wañaaru ba nga xamante ni marem ni rekk dugal naa ko sax mi ngi suuf jox naa ko garab ak ak lu tàng lu. mais marem euh, lan la. marem naka xam waaye yaa ko fi tudd léegi. mais lan yow xanaa da nga dof yow naka ngay dajeeg nit ci kër gi euh, ci buntu kër gi xamoo ko xamul nga ko fi dugal yow su dee sàcc wala bandi nag. bandi. na ko xam. xam nga la laa la yëgul lan léegi nga génn ko kër gi wala mu wàcc dàq ko. ajana génn. lan la bàyyi ma wax nga ci teg baat waaye jugal génn kii kër gi waa yow. waxtaan bi day neex borom kër. ajana ma. xaw ma looy def. ba pare lan loolu daal ba tay sa dàll yi di ko summi n'importe où

àjjana bi ci kaw. nee naa tekk dootuma wax. bon man dama ñibbi. wala mën koo dem. non bëggoo xet nekk sama xarit. non bàyyil da nga am gan bàyyil ma dem. déedéet ku la kii du fi sax yàgg kay sax ma présenté la ba nga xamante ni moom. waaw d'accord. ma ne ko garamee ngoog de. ak riche ak a bëgg boppam. Pos na nga def. ça sant yàlla jëm naa la joindre ba son jotuma. Hmm. waaw kii kan la. kii kan. kii taxaw xale bu jigéen bi. Hmm. kii ku bees la fi. nouvelle la mais man xaw ma sax turam parce que moom du wax ko ay un mois deux mois la fi def dafay day fas kanamam rek. mais nooy mënee am ñu mel ni doon ma ko wax. wanaa la wanaa la ba sonn jotuma la. mais nag boss ouvrier yi ñu ngi yuuxu de instant yi nii salaire bi nii bu ñu ko joxul dina dina doy waar de. xale bi saf na waaw.

ndax sëy rekk la tax a jóg. ku ko bàyyi mu naan wax. fonk nga sa jëkkër respecté nga Cheikh jox nga ay mbokkam cër sëy rekk nga moo la tax a jóg yaa ngi ci ginaar yi yaa ngi ci neer yi yaa ngi ci borode yi koñ bi zéro faute. wóyul ma seytaane macha allah sa liggéey sa kër sa jëkkër. en ah, Miss Monde yaa ngi may dégg koñ bi dara manqué wu fi. jéeg bu nangoo ngi de Cheikh da nee na takkul. takkul takkuluwul ñaar ngeen euh disons depuis quelque temps. 10 ans ci koñ bi te la. mère bala man sa 10 ans ans la wax. Yo, mii yara ji. ay Noura yow nga bañ. ah Lalla sa nga de ni daal nga def si bi. <laughs> dama koy ci ngoon gi. bëgg naa ci de xanaa boutique ba laay ñëw. ñu defal la bu dàq bii waaye xamul ma si jaaxal sama biir bi. ay yow laa la amoo biir de. biir kese laa yow. moo pourtant nag maa ngi jaay ay génn yu baax. génn loolu kese laa doon wut nag. bëgg nga ci. bu baax sax. dinaa la ci indi amul benn problème waaye nag boole ci sport tuuti. xoolal jox ma sa numéro sax defal ma ko fii nii. da nga may bippé comme ça ma ma am ko. waaw xaaral tout de suite ça. voilà c'est c'est bon. voilà. Oui, mais nag na nga ci boole sport de. géej gi lay jël. waxuma la nga takk ko rek toog. <laughs> waa ma dem yow am nga jëkkër. yow laal la aw oh ma. ii. waaye am nga ku lay labade yow. sa xanaa. ah bu baax nag. ëbbi maak moom de comme lem ak meew. bu ñu mës a tàqali ah, ko. yàlla la takk. Hmm, yaa ngi ñaan sa musiba de. aywa loolu rek laa bëgg ñaanal leen ma. man sama ñaan day dal de. na dal ak jàmm. amiin amiin dégg naa de jeeg bu la ñaanalee dangay sëy. léegi rek incha allah. ah bala mañ sax xanaa boobaa moom.

D'accord. C'est noté. D'accord. Merci. D'accord. Merci, monsieur. Non, non, non, je vous reviens. Je vous reviens, pas de souci. Au revoir. Merci. Wow. Ricky, yo rek la gis ngay dox ci naaj bi di gën di leer naka ça va je vais bien euh, Dis-moi, je pourrais voir le boss, s'il te plaît Oh, il vient de sortir. Qu'est-ce qu'il y a Tu as un problème Ta entreprise, tu penses que tu n'as pas fay wala oh tey moom du baax pareil Je man mii sax si soxla là, nekk nii. lan est ce souci. waaw en fait dama am problème familial bu ma dab léegi te dama soxla c'est vraiment nu mu gën bon laisse-moi voir une minute. Allô Oui, bonjour Monsieur Diagne. Oui, ça va bien. Euh, dafa am kenn ku la soxla woon. vous êtes libre d'accord ok maa ngi koy wax mu bureau merci au revoir. ok xam nga le bureau de Birame Diagne. non mais dinaa laajte. boo le couloir bi rek deuxième bureau. merci à Aram. je vous en prie Racky s'il te plaît tout quoi. Oui. Ah, c'est vous. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Prenez place. C'est comment le nom déjà Hakiso. Sao Pulo Ardo. Dites-moi, que puis-je faire pour vous Bon, je ne veux pas paraître impoli vu que je suis nouvelle dans l'entreprise. Je voulais juste savoir si je peux recevoir ma paye aujourd'hui, au cas échéant une avance de 80 000, parce que là j'ai une urgence familiale. Mais écoutez, franchement, l'entreprise ne fait pas cela. Ok, je comprends, merci. Mais oui, moi, souris, Maman Diarla. Désolée, mais je ne suis pas un clown. Hein? Mais ça, c'est un métier. xanaa xamoon un dafa war ne sais pas ni nga mel un moom Je la jox dara si bi ñaanuma la de je demande juste ce qui me revient mais écoute exceptionnellement pour toi naan jox avance dégg nga loo ci def sama salaire la bokk. bien sûr. Racky.

bëgg jigéenu caractère ki dama ko nar a fob defi la ma ko hmm? Marème nag mënoon nga toog nag ba ci kanam man doyul ma woon. yii ëpp na bàyyi ma dem ba beneen yoon. Noura Noura kay tàggu tata dafay dem. Noura moom sama xarit la war naa ko tàggale balaa may dem.